ki nga xamante ni moom moo di Garga dañu koy daal di bàyyi rek mu nuyoo ginnaaw bi ñu la jaalee lu ñu bokk Garga ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay ah nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñoo bàyyi seen i yëpp ñëw di jaale mère Diouma di ko jaale Garga Mbossé di ko jaale Zos di ko jaale Tafa di ko jaale nag ki nga xam ne mooy seen mag di aas mère bi wax dëgg yàlla ñun moo ñu yar te lu baax rek lañ xam boo musaana ñëw ci kër gi sox ñu naa la ñu jox la surnom danaan Garga kii noonu la tudd. xam loolu ku baax rek a koy def mënoon naa jàpp ni garga deux garga danaa ne kii nu mu tudd bu defee ngeen ko bas laa tudd wala Modou laa tudd mu soogal ne ah non sant ma ngeen ko bëggoon mbokk la woon daal wax dëgg yàlla te nit ku jullite la woon dañ koy ñaanal rek yal na ko suñu borom yërëm te xaare ko ci àjjana firdawsi njaboot gi nga xam ne moom la fi suñu borom bàyyi tamit moom la fi bàyyi suñu borom tekki loxo bu baax a baax di ko jaale famille bi yëpp di ci jiital nag seen mag as mi nga xam ne moo nekk ci kër gi as ngoom ñu ngi koy jaale famille bi yëpp xamante ni moom moo di Garga Mbossé ak euh, ki nga xam ne moom moo di Zos mbir mi seen ginnaaw la xew maanaam nekkuñu ci réew mi euh, tey boo amoon doo leen di dénk ci ay kàddu ndax ku nekk xam na ni jur dafa sori lool ci xolu waa waaw xanaa ñu muñ rek ñoom nekkuñu fi waaye ñun ñu ngi fi ndax ay maire bi suñu yaay la woon suñu fan fi nekkee mel na ni Garga ngi fi bu fi nekkee mel na ni Zos mu ngi fi lépp loo xam ne war na ci ginnaawam dinañ ko def wax dëgg yàlla mooy gunge nañu maire bi ñaanal ko dénk ko suñu borom. di ko ñaanal rek yàlla na ko suñu borom xaare ci àjjana firdawsi te rafet nañ ci moom njottu daal bu baax a baax waaw jërë ngeen merci beaucoup jërëjëf حميدة يقابلني يوم المقفل ayca voilà mbokk internet ci comme ni ngeen ko gisee rek dañuy jéem a avancé daal di xool ñenn ci famille bi ñu jéem ñoo dénk rek quelque ci ay kàddu ndax itam dafay baax lool euh, ñu def témoignage daal di wax nag ci soxna si nga xam ne moom moo di soxna Juma euh, comme ni ñu ko waxee nee woon nañ soxna su baax la woon waaye tamit yàlla suñu borom mel ni rek lu koy firndeel euh, ginnaaw ci anam bi nga xamante ni moom la génnee àddina fukki fan yi mujj yi comme ni ñu ko mën a waxee li ci gën a neex nag bokk ci laylatul xadri bi nga xamante ni moom la daal di métti na bu baax a baax si moom ndax dégg ngeen Garga 2 léegi témoignage bi nga xam ne def na ko nee na soxna Juma soo ñëwee ci kër gi moom ci boppam euh, du la laaj turu mbër daf lay laaj turu dëgg ngir mën a xam rek li nga xamante ni moom di sa tur te loolee ku bi mu daal di rek sànni ay kàddu def ay témoignage ci euh, ci soxna di mag si Jos rek nga xamante ni moom mooy Garga euh, as ginnaaw bu ñu la jaalee lu ñu bokk ñu ngi lay nuyu bàyyi la bëggee ñëpp di leen waaw di leen ndokkeel ci aju weeru koor bi ak yëpp wax dëgg yàlla waaw di rafetlu seen ñëw ak fii tam xam ne yëg yëg yi tam moo tax ngeen ñëw fii waaw di leen di leen jaajëfal baax waaw ah di ma sama yaay la loolu sa yaay loo ko loo ko deful da nga ko amul sama yaay la waaw yàlla def na moom léegi li gën daal waaw mais son loon defuloon dara wax dëgg yàlla mu ngi ci ay loxo yu doo amul loolu la ñaan yàlla ay dem ba ay doom yor ko te wax dëgg yàlla macha allah dafa rafetoon na daal lépp rafetoon na waaw lépp rafetoon na. xamante ne nekk na fi ak loolu moom xam nga ne ku mu ku mu dalu dem di nga xam ne xam li ci nekk. bu la fekkul moom moom boo mun boo mun naasoo di naaw mais yàlla mooy def li gën rek. Mm. ñoom tam ba seen xol xam ne yor njaboot te ku yor njaboot xam nga li xaar. sant yàlla bu baax te xam naa garab moom di gis léegi sax. waaw waaw waaw moom moom mi ngi mi a marqué ci suñu yaay. ah, ah. mu nekkee yaay jaboot ci koñ bi rek ak ñëpp conférence la jógee. veille bi ñëw wàcc ndogu jot tànk mi xaw a naqari mu ñu dugg ci waaye dugal ko ci biir ñu ndogu bu ngoon jot mu jàmm tuuti ma des reer normal normal mu tëdd jot mu tëdd waaw yeewu yàlla def na nag naan na la bi ñu xëy noonu ko fekkee sonalul kenn wax dëgg yàlla waaw ñu tam waaw ñu tam ñu topp deen xatar ñu tam ñu topp toog topp toog bu ci war waaw xaar mbokk ñoo ñu defal loolu lépp incha allah loolu ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi saar ñëpp waaw dañ di jégal ñi nga xam ne ci internet ñu koy yëge tamit seen ku nekk ñu wala mbaa ñu kii la ñu bokk la ñu bokk la leer waaw jërëjëf na ko yàlla yërëm te saar dëkkandoo bu baax bu am yëg bu bëgg lislaam bu am teraanga bu am sutura xale suñ loxo bii la juddoo ñun ñii ñoo dëkk moom ànd ak ñoom ngénte xale yi maa seeg moom jamono muy dëgg ndànk wax ndànk saar ñu di ko ñaanal fa mu tëdd yal na suuf sedd guy ci kanam ci kawam bërki démb rek lañ toog moom ci conférence bi man nii ma dend ak moom nu deen dimanche bët sedd altine yàlla def lii lii nag moo neex yàlla amul benn problème saar xuluwu fi xeexu fi ak njabootam kenn àttewu ko dina dox ndànk nen dëgg ndànk man mii sama xaritam su bëggee kontaan ma jube dama ko naan juma yaay seeni mu daal di kontaan ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na suuf woyow ci kawam njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxoom Sarr nong koy ñaanal xol bu jeex waaye li nu mën a wax ci juma saar bari na ñu ngi nii toog sant ko ñaanal nag njaboot gi yàlla bàyyi ko ci sunu kanam te ñu se barke ba ak wërsëg ba Sarr kontaan na naq rek lañ fi tooge tey waaye nag mënut a ñàkk mënut a ñàkk yàlla bu jaam soxloo bu yàlla soxloo eh, bu jaam soxloo yàlla soxloo yaay ñàkk kon nag ñu ngi koy dawloo yàlla di ko muñal yàlla di ko ñaanal yàlla suuf foyew ci koom jër géen jëf kontaan nañu lifte fi su njaboot gi yàlla na ci yàlla teg loxoom nit ku baax dem na nit ku am teraanga nit ku am sutura ko amee teggin saar ku ñu bëgg nag ku ñu safoo ku ñu faale njaboot gi ñoo leen ngénte ba ci sos mi ba ci garga ba ci xale yëpp maat ba ci aas taxaw ñun ñii leen ngeen te noo ànd ak moom ci koñ bi mu def lu baax dox lu baax Sarr yal na ko yàlla xaree àjjana naqar rek la fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce Sarr jërë ngeen jëf. jàmbur yow tamit euh, yan témoignage rek ngay def ci soxna Juma Sarr. li soxna si wax rek loolu lañu wax wax. ma ko dara lu bon. Mm-hmm. Ah, ah. wax dëgg yàlla ma ko dara lu bon lu dul lu baax. njabootam yar nañu am nañu itte yegg nañu ñoom ñëpp dee nag bu ñëwee ñëw na mm-hmm. attewu ma ko ak kenn wax dëgg yàlla xamaluma ko dara lu bon lu dul lu baax ak yëg nit ñi fu mu lara mooy nuyu na la jàmm sant di fooree loolu laa ko xamal xamaluma ko lenn lu dul lu rafet hmm, loolu laa lay wax ni waaw attewu ma ko ak kenn musuma ñëw këram ba atti waaw romb ma tam mu ne ne jima saa lii la fi defa wala lii la fi wax lu lu toog jàpp jàmburam këram bu la rombee jàmm sant ak yow foo yow reeg yow loolu laa ko xamal njabootam yaru nañ yëg nañ nit ñi ba ci setam yi wax dëgg yàlla maam maam moom laa sekk ak ñoom doomam yi noonu lu baax laa loolu lu baax laa ko xamal xamali ma ko leneen waaw yal na ko yàlla xaree àjjana ñun ñu fi des loolaa ñu fi bàyyi yal nañ fekk ci lu baax li ma ko xamal loolu laa wax noonu. dañ koy ñaanal yàlla ñam fa fekk ak ña ko fa fekk yëpp yal na leen yàlla defal àjjana ya gën a kawe ci àjjana yi man de bari ki démb laa fi mujj ci këram gi ñëw ci jàkk ji génn mënu ma yegsul ci biir ma ne néegam ñuy buntu ko néegam ñuy waxtaan ba yàgg ma ne ko du ma nag maa ngi dem moo ma omat ci sama loxo fii ba ci àngal bi ma ne ko léegi mën na dem ay doomam ak suñuy doom ñoo ànd ñoo goneendoo ñoo magandoo moom bi mu toog si koñ bi ñuy toog buntu kër Cheikh Diallo gi di fi waxtaan parankoon mu ne ma yaay sama ndey dikki ma ko yaay sama ndey dikki booba léegi nag xamaluñ ko lenn xuloo wut xiixut ku ku nekkal day waxtaan ak yow di reere ak njabootam noonu kon nag dañ koy ñaanal yàlla rekk ñam fa fekk ak ña ko fa fekk ñaanal ak njabootam yàlla teg ci ndeyjooram yal nañ gudd fan lool wu ànd ak ak wér dese seen barke baay ak seen ndey nañ fi yàgg te wér xamaluñ ko dara lu du mbaax toog nañ lay waxtaan ci conférence bi nii mu toog ñu jug saraxe ndeysaan ma xool ko rek xalaate wuñ ko ndax ñoo ànd ak moom yan doog moom ndax nag waaye nag yàllaa soxla yàllaa soxla yàllaa soxla ñu ngi koy ñaanal yàlla xarit ko àjjana jërëjëf jërëjëf هل